Kouthia mi doon wax ak jabaram wax yi moom man mënumaa nekk naa fekk ba ne dafa rafet déedéet gis nga booy wax dëgg danga koy wax mu mët wax ji ñaaw na loolu ñun ñëpp d'accord nañ ci mais naka jëkk jabar jam ko seqaloon mu am fitu enregistré jëkkëru boppam ba di ko yónnee naka Adama doomaraam bu teppi lëfal ndeyam bi bi ko génnewul te bàyyi cottu ndeyam bi fële wanewu ko Adama li yaayam di def musu ko wane soo waxee mu ne suma yaay am nan ngay amee sa yaay ba pare di bàyyi jàmbur doomi Kouthia mu ngi doon waaj a takk jabar doomi Kouthia mu ngi ci société bi mag la kilifa la nga mun a génnee ayibam nëbbal Viviane ayibam nëbbal Wally Seck ayibam génnee bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu bu Kouthia mais fii Sénégal la ñun ñuy màtt yëpp xamante neen ñun sàcc yëpp xamante neen ñun naankati sàngara yëpp xamante neen ñun lesbienne yëpp xamante neen ñun góor jigéen yëpp xamante neen ñun fenkat yëpp xamante neen fii Sénégal la dafa xat Sénégal juróom-ñaari dëkk rekk la siin saalum kajoor bawal waalo njàmbur jolof senegal dafa xat ñun ñuy naan sàngara yëpp xamante neen donc boo fi ne yow Viviane nga faral di xas Kouthia mais faraloo Viviane Viviane artiste la woykat bu mag macha allah jigéen ju baax man mbaax rek laa mën a wax ci moom mais nan ngay xasee artiste ngir artiste it doesn't tell well toog man waa Viviane laa am xeexal Viviane moo noon dem ci moom na ko dégg naa liñ la waxal mais man yow rek laa bëgg yaay suma yaay mu te yàlla tax Kouthia nit ko baax la lii da koo rëcc jot Kouthia wax ak moom na ko ah papa juum nga de waaye yàlla nañu yàlla suturaat mu jeex waaye naxaat Kouthia waxaat ak moom tegaat ko gis nga duma wax sax ci Adamo damay wax ci suma bopp man déglu leen bu baax li may ndax damaa bëri xam-xam te suma xam-xam dafa kawee dafa yéeme faaw ngeen may déglu attentivement Ababakar Siddiq radiallahu anhu Seydina Ousmane radiallahu anhu Seydina Aliou radiallahu anhu Seydina Omar ibnul Xataab radiallahu anhu ñii ñëpp nit dëgg leen ñu topp yonantu bi yonantu yar leen ba kenn melut ni ñoom ñu daan taxaw ci toolu xare ci ndigali yàlla ak yonent di rey ay ju ay xéeféer ci ndigalu yàlla déglu bu baax li may wax <clears throat> Seydina Omar daf doon julli ji ci biir jumaay yonent ñu jam ko paaka ñu nandal ko soow soow bi génn ci jam-jam bi benn Seydina Ousmane daf doon jàng alquran ba ci fasa yakfikumullahu wa sami samiul alim ñu dagg baatam bi deret ji tuuru ci kaw alquran moo tax ñuy maasee alquran lu xonq ngir fàttale ko ak rendre hommage Seydina Ousmane mi njëkk a dajale kaamilu alquran dañ koo rey ñaar yonentu toog naag naa Aliou mu ne ko den lay rey te bis bu ñu la dóoree jaase ba sa sikkiñ bi fees ak deret xamal ne da ngay dee ci toolu xare ñu xar boppam bi mu làmm sikkiñ bi mu fees tëpp ak deret mu xam ne jeexal na mu dund ak méttit boobu juróom-ñetti fan ci àddina dee waa saxaaba yi toogoon ci toolu xare ci dëgg di rey nit ñoom la yàlla mujjee rey parce que nit dafa for nga toog di uññi sutura gor yi mel ni mag di Cheikh Yérim Seck ne quatre-vingt-dix pour cent sénégalais dee ci dëgg dee ci fen moo gën dix pour cent yi dee ci dëgg yow nga ne daf ne neen dee musta wax loolu wax yàlla sa buñ ko daggoon yàlla fen mag di day dagg waxi nit ñi rek di leen duulal di leen sosal mel ni kuy joxe moral fekk musta joxe moral te du toog ba wane lu rafet lu ñaaw rek kon yow yaa ngi xaar njuumte doomu aadama yi ngir mën a wax c'est pas normal kon li aadamoo di def mooy da doon fekk ñuy kattante di def leen neex mu jël vidéo yi ñëwal live bi boo ñëw danaa doxanday vidéo yi nangam nangam yàlla di ko yóbbu ba moom aadamoo mu taxaw simmi tubéyam bi wane kooyam yu ndaw yu dëng yi allahu akbar kabiran walhamdulillahi kasira laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah noonu la ko yàlla ate xaw leen xaar leen ba organiser ba live bari mu lii yàlla rekk moo ko mën ci jaam yàlla kese kese kese moo mën lii ci jaam keneen mënu ko ci ci ci jaam ñi yéen a ngi déglu xam-xam bi saxaaba yi doon rey nit ci dëgg dee leen rey ndax bakkan moo foor doomu aadama moo foor yow nag <clears throat> liggéey ngir nit ñi seetaan la ci image tax nga wane taatu yaay jàmbur taatu baay jàmbur ak xale yu ndaw yoo xam ne sa leen jàpp xamaguñ ci àdduna dara nga war leen a jéggal sutural leen yar leen napp leen wan leen ne am nga vidéo bi nga wane seen taat ngir am vie <laughs> buur bu màndu la te àdduna dafay dox neen toog rek seetaan yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mu ne ataani jibrilu fa qaala yaa muhammad wahbib machit fa ma innaka bi bihi mu ne ataani daf ma ñëwal jibrilu jibril fa qaala mu wax ma yaa muhammad eyow eh muhammad defal lu la neex waneel photo ku la neex enregistreel ku la neex demal ci live fi di commentaire lu la neex defal lu la saf waa yàlla daf la koy fay munoo ci dara dama dugg avion ma jóge ko Chicago di dem Kansas City in the United States of America ma jaar Denver ñu am a flight delayance maanaam avion bi tardé awma lu ma lekk ma taxaw foofu di woo suma benn jigéen ngir ndax dina ma mën a commandel benn waay taxaw na ma what do you wanna ma ne ko anything nice loo bëgg a lekk ma ne ko lu saf rek man moom nay nooy nay niin nay sedd mu ne ma jëlal lu la neex mu fay ko ma pare di ko gërëm na ko ndax mën naa jël sa numéro mu ne ma amul solo jël sa numéro solo dama feel like war naa la ko defal ma defal la ko mu ne ma I don't even want us to know each other fooy dem mu ne ma Israël man maa nga jëm fële xam ngeen lu tax fàttaliku naa ay yoon yoon ma génnee suma xaalis jox ko nit mu lekk te yàlla rek tax bi ma taxee xiif rek yàlla fay ma ko back in 2019 2019 dama seet suma yoon génnee suma sarax def lépp Adja Ndeye Cissé yaa Fatimata Zara moo ko jur yaa Fatimata Zara Baye Niass moo ko jur bàjjan la ci man moo dem ca daral ba na leen kii suma doom la te ku jub la lebal leen ko xar su fayut may fay mu garanti ma ma dem Nigéria doomi Adja Ndey bu tudd Aji Yaama Ñas Aji Yaama Cheikh Tidiane Ñas mooy baayam Cheikh Tidiane Ñas baay sëriñ Baye Ñas moo ko jur kooku ak Baye Ñas a bokk baay may ma 7500 ma weccee ko ko foog naa na dalay 10 dollars laa ci am wàcc Nigéria xaw ma fa kenn ma dem ci benn hôtel mu ne ma ma expliquer ko mu ne ma mën neen la may nga dëkk waaye doo lekk ma ne ah si si si bu dul lekk <laughs> fe waxoo ma ko. ma woo suma papa Cheikh Jéeri li may waxee damay tudd tur que li may wax dafa am preuve mu ma am na benn rest am na benn hôtel bu tudd euh, ABC NBC ma dem fa ma ne leen man de dama fi ñëw. ma fen ma ne leen dama fi ñëw liggéey dangeen may may ma dëkk ba àllarba ma fay mu ne ma du problème ma ne ko da may ubbi bi may lekk mu ne ma du problème may ma ma dëkk benn waay romb ma ne xam nga xaalis day day wax waa xaalis su nekkee ci jëmm ma ne ko hey hello can I talk to you mu ma yes ma ne ko ndax mën naa waxee mu ne ma ma ne ko man dama am xam-xam dama am lu may waxal nañ dugg ci biir ma wax la sa àdduna lépp waa ju xool ma xoolaat ma na ma ok wait for mu dem laaj réceptionniste mu ne ko xamuñ ko waa ji jël suma passeport yónnee ko police Nigéria ñu ne ko kii dafa benn crime mu invité ma ci biir ubbi bunt bi fa laa xamee ne àdduna lu ne danga koy sóoraale ubbi bunt bi ma toog ak moom ci biir ma commencé xam nga seet danga koy mën man damaa mën ñi ma xam man xam nañ ko ci man damaa mën a seet ma jàpp ji dama ko seetal la seetal la seetal ba mu génnee fetal ci goonam bi ci saag bi xëcc ko karaj karaj may bandi bandi lu toog benn tiituma te boobu xaw ma damaa yàqu suma tubéy ci xaw ma yàqu ko man xaw ma dur ko benn réew ku tiit xam nga mooy <laughs> mu ne ma tell me who sent mu ne ma wax ma kan moo la yónni ma dëgër fi rek na ko yàlla moo ma yónni ci yow xam nga anglais dañ naan man yonantu laa fekk jubluwuñ ci olof nu ñuy wax comme ne beneen yonantu laa ma ko am na messenger waa ji gën defar fetal bi ma ne buñ ma dóoree fii yàq neen góor gu safta neex góor gu xoromu ko àdduna war a jëriñu rek ma commencé di jàng ayatu kursi ak ay jat mel ni ku tiitul di ko wan kanamu guerrier laa quoi xam nga àdduna moom boo demee bay dee rek ñëgal su ma ayatu kursi bu may commencé mu jeex ma ne gaaw na di su ma ne allah rek maa ngi ci affaire ma ne ko calm down stop ngir seet gi ni mu leeree mu foog ne den ma yónni waa ji sànni ma mille dollars na ma I will talk to you dinaa wax yow su ma ko bëggee sànni ma 1000 dollars ma dem fay hôtel bi zonge filaale affaire neex ma ne ya noonu Nigéria neex na rek luye taxi <laughs> bandi bandi rek lay doon <laughs> ma luwee taxi duggu town xool bagage yi nga def li ma saf ñëw tëdd